des na ko ci tabaxal pale bu rëy ca àjjana boo xam ne dana am juróom-ñaari néeg néeg yoo xam ne lépp urus lay doon néeg bu ci nekk dina am junniy lal lal bu ca nekk dina am soxna te des na ko ca bindal tuyaabay ku wóor ñaar fukki at euh, julli junni rakaan boo demee ci téere bi ñuy wax xurratu ayni bu sëriñ Suhaybu Mbàkke noonu la ko bindee page 146 خير ضيف أتى بالبشر والمداد